production présente. ñoo ngi wax asalaamaaleykum waa Mbour. ñoo ngi dalal le grand champion de la Petite Côte. je vais nommer Bombardier. naka ñëpp tàccu. ñoo ngi lay dalal fii ci Malicounda di dalal sa staff ku la gis xam ne. xale yi mbuur yi ànd nañoo ak yow jigéenu mbuur yi ànd nañoo ak yow sportif mbuur yi ànd nañoo ko yow waaye doomu mbuur yëpp ànd nañoo ak yow parce que la jóge fii dem dakaar dakaar di milieu bu jafe jafe lool parce que en matière de sport xam ngeen ne à chaque fois équipe bi recevoir day am avantage su dëkk ba mu nekk te ku nekk xam ne ne arène nationale Dakar la nekk. mbër yi bombardier doon dajale ñëpp Dakar lañ dëkk kon jóge Mbour dem Dakar am fa ndam indi ko Mbour nekkul lu yomb kon ba bombardier boo ko defee waa Mbour yëpp ñoo ci fier waa Mbour yëpp ñoo ci kontaan dama bëgg ngeen tàccuwaat bombardier bu baax a baax a baax moo tax ñun en tant que doomu Mbour combat boo am dañ ciy jàpp luñ ci jàpp xeeb nañ ko. combat beneen doomu mbuur bu amee combat dañ ci jàpp Pakala jàppale nañ ko ci combat bi jàppale bépp doomu mbuur boo xam ne bi am na compétition au niveau de Dakar yemeluñ ko ci làmb ji parce que on l'a fait pour le basket on l'a fait pour Astou Traoré Astou Traoré a été championne d'Afrique de basket indi coupe bi Malicounda ñu defal ko teranga bañ ko defal kon yow tam champion jàppale nañ la ba ngay dem nga dig ñu victoire indi ko dig ñu ne ñun ñi nga koy njëkk a indil drapeau bi indi nga ko def nga lu rëy kon di nga am leneen lu rëy nag waaw di am leneen lu rëy loo xam ne lii du ma ko tudd waaye yow di nga xam man dinaa xam ci campagne lañ ne waaye xam nga ne daal kontaan daal di ko def bu soobee yàlla parce que ku baax dama ne. ma ne monsieur le maire Pape Maïssa monsieur le directeur de campagne bu Diouf les responsables de Benno Bokk Yaakaar yi nekk fii ak mbooleem responsable dëkk yi ci seen tur ci jigéen turu jigéen ñi ñoo ngi lay féliciter parce que tey da ñoo fekk ci réunion électoral ñu doon élaborer suñu programme électoral nga ñëw sagal ñu indi ndam buñ dee wuti nag nga ñëw indaale ndam ah daa mel ni mbir mi xaw leer na kon gars yi. waaw ah, xaw leen leer. di leen joxante rendez janvier au soir ñu invité la incha allah nag ñu diggee woon drapeau ba ñu dig ndam li indil la ko. fekk la mbuur ànd ak yow caravane biir Malicounda. Sénégal dégg jàmm. merci dama ne dama ne xool nga gox bu ne buñ ko fonkee ña fa dëkk ñoo am jom te lañ ne def ci Pastef def ci taxawaay wane ca jaloore ku dëkk foofa ñu respecté la kon Bombardier boo nekkee icône département de Mbour dem di bëreeg Balla Gaye mbooleem kuy politicien géejawaay nekk ca ginnaawam ñun tamit dañ lay jàppale ndax amuñu lu dul sunu dëkk amuñu lu dul département de Mbour waaye ndokk nag bañ ko defee ba pare nag te gàcceeloo ñu indi ndam li ma xamal ne ñun Mbour département bi yëpp muy lutteur muy footballeur muy musicien ak lu brique muy basketteur képp koo xam ne kii rek yaa ngi excellé ci sa domaine dañuy am ambition am engagement pour jàppale la parce que porte drapeau nga ci domaine ma nga nekk ndokk nag yow biñ la porté ci kaw nga dellu si sagal indil ñu drapeau bi yàlla na la jik na donc ñoo ngi sant ñëpp di féliciter waat Bombardier di jaajëfal le journalistes les batteurs qui sont venus t'accompagner ñoo ngi leen di jaajëfal jigéenu ñii bokk ci sa staff de ay mbër yu jigéen ñoo ngi leen di jaajëfal di jaajëfal képp ku teewee bis bi encore une fois Bombardier tey jii ñun dañoo bëgg Malicounda ñu nangu la laa bëgg a nangu de am na lu ma la junj de dégg la dañoo bëgg nga dëkk si Malicounda loolu la ñu bëgg loolu kon am na bis ni ki tey annoncé naa ko nangu nañ Bombardier waa Mbour bu ngeen nelawee ñu nangu ko indil indi ko Malicounda production présente